mooy sunu juróom fukkeelu ajjuma ak juróom-ñett kon tey ci ajjuma ji Cheikh Mouhamadul Fadilu Gueye ca Leeds Angleterre moo jaayante añu jumaay Touba Cheikh Mouhamadul Fadal jëf ji jiitu na bis bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñaan yàlla suñu borom Serigne Touba Cheikh Madul Muntaqa yal na fi yàgg lool te ànd ak ngeen baal ñu àq alhamdulillah.